salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaar ñu ñëw ak yéen ci revue de presse bi tey jii la jeudi 25 mars 2021 ñu door revue de la presse bi dooree ko fii ci Sénégal ndax bay ci sa wewu tànk ñu door ko ak record yéene kaay moom waa fi groupe Futurs Médias ñoo ko moom. fu lu mu tiitree sama waa ji kii di Abdallah Sima nekk attaquant Slavia Praga sa république bu Tchèque moom ñeenal tey sa sa équipe gagné la nee na équipe bii kat mën na gagné lii di kaan bi ka ko wax mooy kan kii di Abdallah Sima moom nag attaquant bu ama am solo la te bu mën la muy def la moom mii kat nee na équipe bii mën na gagné kaan bi te bu ma leen ko waxee rek ngeen bàyyi xel loole waaye kat kii di Abdou Diallo moom kat journal bi taalal na ko micro ne ko yow lu tax nga ñëw Sénégal mu ne man sénégalais la France laa juddoo nag waaye man mii sénégalais laa de moo tax ma tànn lii di équipe nationale ñu woy jël stade yéene kaay moom lu mu wax moom. nee na c'est une nouvelle perle pour embellir le loolu moom lu muy tey ci. xale yu ndaw ñoo bëgg dool équipe bi doole football équipe bi. waaw moom mii kat nee na journal bii di stade yéene kaay nee xale yu ndaw yii daal am nañu yaakaar wala amal nañu yaakaar ne ëllëg ñii dinañ def jaloore ci senegal indil leen ay trophée. ki nekk mooy Abdou jallo Abdou Diallo moom ma ngay jongante fële ca Paris Saint-Germain te ab défenseur la te dafa polyvalent bu la neexee nga teg ko latéral gauche bu la neexee nga teg ko ak central moom mii di ab Abdou Diallo dina indi lu bari équipe nationale bu senegal keneen ka mooy kii di Ballo Touré moom ma nga fële ca Monaco moom mii ab latéral gauche la bu man la muy def la te nee nañu sax xam nga Sénégal dafa am problème mu latéral gauche nee nañu kat gone jii kat am nañu yaakaar ne jafe-jafe yooyu Sénégal nekk moom mii dinañu ci génne moom mii di Fodé Ballo Touré. stock mooy Nampalys Mendy. Nampalys Mendy moom ma nga ca milieu terrain ba moom mii nee ñu mën na indil Sénégal lii di njëriñ loo xamante ni dina am doole lool ca millier terrain ba jàppale kii di Idrissa Gana Gueye ca milieu ba moom nag ab sapeur la défensivement dafa baax mën na marqué te xalaa ma ndir baajo kenn du ko romb moom mii di Nampalys Mendy. toog mooy Abdallah Sima. Abdallah Sima moom ma nga ca attaque ba te gone gu ndaw la toj na fële de République tchèque. ma nga koy toj ma nga fële ca Slavia Praga di def lu ama am solo kon nag am nañu yaakaar dina mën a jàppale Sadio Mané ak kii di Boulaye Dia. moom mooy Pape Matar Sarr ak kii di euh, attaquant bi. Alassane Ndao Alassane Ndao Alassane Ndao moom xam nga ndaw la santa man kala sant ay kii la ñu. xam naa ne danaa ko jàppale ci yu bari mu mel ni kon équipe nationale bii kat yaakaar nañu xale yi dinañu amal njëriñ ëllëg Sénégal dinañ leen indil lu baree baree bari ëllëgu Sénégal daal mu ngi ci gone yi ñu jógee Sénégal. dem Espagne fekk fa marka moom lu mu titré. moom nee na le Qatar vous Espagne. ñii di waa Espagne lay waxal nee na leen Qatar ñu ngi leen di xaar tey jii dañuy am match qualification coupe du monde waaye ñoom ña ngay dalal waa Grèce dañuy dalal fële ci Granada lañ leen di dalal waaye ñii di waa Espagne mosuñu ñàkk match qualification seen dëkk maanaam dalal la ñàkk ci qualification mosul am naam Grèce dana leen sonal lool. waaye tamit ñii di waa Real de Madrid ña ngay yaakaar na kii di Odegaard dellu si ci Real Madrid ay jaloore bu ñëw. defee ciis rek dem ci mbokkam yi di waa As li ñu wax ñoom. ba léegi loolu la wax ñu leen di xaar. waaw As nee na ñu ngi leen xaar de yéen waa Espagne tey jii Grèce ngeen di dalal waaye nag fexe leen ba am ndam ca loole ndam lu am am solo waaye kii di Gérard Mourinho nekk ca Villarreal moom mii du bokk ca jongante ba ndax dafa am ay gaañu gaañu waaye kii di Porro moom ma nga fële ci Sporting bu Portugal am nañu yaakaar lool mu départ ca match ba jongante ko moom mii di Porro ñu jugee As. dem jël super déporté moom mii kat ma nga dalal ñaari sóor yoo xam ne jaar nañ Valence de. waaw mooy Manolo Salvador. ak kii David Navarro. ñoom ñaar kat ñooy xamle nee na fii di kii di Valence kat ba fii Benitez équipe bu baax lool la woon waaye tamit ña wax ca waa Real de Madrid ñaari joueurs yooyu nee nañu ñii di Real Madrid jël nañ fi ñaari liga yoo xam ne dañoo doppe woon dañoo amoon ay doppaas yu doon def kenn xamul ñoom ñi ñoo ko wax waaye kii di Célissène di góolu Valence moom démb xam nga mooy góolu Pays-Bas moom ca échauffement démb ci la gaañoo ba dellu Sirso Canales. moom nee na Canales femme moom mii di Canales kat ñëwaat na de ginnaaw bi nga xamante ni dafa amoon ay gaañu gaañu ñëwaat na nag ndax kii di Luis Enrique ku ko bëgg la ba mu fa ñëwee ba léegi da koy woo lenn rek mooy tax mu woowu ko mooy mu gaañu gaañu woon na nag wér na ñëwaat na ca équipe ba ngir ñu dem qualifié ji nag dem Qatar deux mille vingt deux ñoom ñii di waa Espagne waaye kii di Javi euh, galan moom mii kat gone gu am talent la mën si da koo bëgg de mën ci mooy DS bu FC moom mooy directeur sportif bu FC Séville neena kii di Javi Galán da koo bëgg indi fële ca FC Séville. Javi Galán ci fàttali moom mu nga ca Huesca ab latéral gauche la kii di mun ci moo ko bëgg ci mooy DS directeur sportif bu. FC Séville Séville ED lañ jógee ñu dem Barcelone fekk fa sport moom mi kat kii di Wijnaldum ak Memphis Depay la dalal. nee na Wijnaldum e Depay très proche. jege nañu lool ngir ñëw fële ca Barcelone nee na nag bu ñu ñëwee ñoom ñaar ñii ki dinañ suyee kenn dinañ signé kenn ku ne ñetti at. moom la journal bi wax nee na Ronald Koeman daal bëgg na ñaar ñii ngir lan dooleel équipe am bu baax a baax a baax waaye tamit kii di Coutinho moom mi kat wéram demul dikkul moom mi est-ce que du opéré waat moom ak kan kii di Ansu Fati moom it daal na muy wéree moom demul céng dikkul mbay laar mu mel ni kon ñoom ñaar ñii kat ña ngay wéy nag di jaxase xel waa Barcelone. ñu jugee Espagne dem wutali Italie fekk fa Corriere dello Sport moom la mu wax sama waa la racha mondial lan naam bii passé demuñu woon nee na lenn képp lañ bëgg delluwaat ca mondial ba tey nag la ñuy door yëf yi dañuy dalal kan kii di Irlande du Nord la ñuy dalal ñoom ñii di waa Italie kii di seen sélectionneur muy man Mancini moom leneen lenn képp la ñu bëgg de commencé ak commencement bu baax maanaam door gu baax door gu baax nag mooy fexe am ndam tey jii la ñuy jongante 19h45 ñoom ñii di waa Italie waaye kii Paulo Dybala yëf ya nag ma di takku suuf ca moom de ndax daal nee nañu teg nañ ko ci marché bi ngir jaay ko kii di Pavel Nedved moom xam la ne ni kii di Pirlo moom day wéy di des fële ca Juve ñu jógee de dello Sport jël Tuttosport lu ma wax sama waa ji. nee tey en avant avec Pirlo et cr nee na nañu dem ca kanam nag ànd ak kan kii di Pirlo ak Cristiano Ronaldo nee nañu ëllëgu crise ëllëgu juif crise la ak Pirlo lool la journal bi xamle ki ko xamle nag mooy Pavel Nedved moom nee na daal Cristiano Ronaldo ak juif dañ fay des à cent pour cent fële ca juif nee na kii di Paulo Dybala nag manqué nañu lool waaye ña ngay xool ay mbiram ñu gisee xaalis yi dinañ ko jaay. moom loolu la wax moom mii di Nedved xam nga moom bokk foor na lool ca équipe ba mu mel ne kii di Chiellini ma ngay wax nee na nag nañu ñëwaat nag ginnaaw nag ba ñu toogee ñëwuñu ci coupe du monde nañu ñëw bi yoon nag dañoo bëgg a dugg nag bokk ca yëf ya di ci deux mille vingt deux la coupe du monde di amaat. moom xam nga moom mooy capitaine ñii di waa Italie. waaw muy waa Squadra Azzurra. moom mii kat nee na nañu ñëw nag ngir laan qualifié ca coupe du monde ba. ñu jógee Tuto Sport jël Gazzetta dello Sport moom kii di CR7 la fësal ca xët wa. nee na fumée blanche et noir pour CR7. kii di Cristiano Ronaldo nag dafa saf sàpp ci noir blanc moom mi kat day desandi fële ca Juve. di doxal nag bu baax ndax ka ko xamle mooy Nedved kon nag xel ya war naa mën a dal waaye ñii di waa Italie tey jii nag dañoo bëgg a door yëf yi nag qualifié deux mille vingt deux ca Qatar loolu lañ bëgg tey nag ak victoire bu am solo ñoom ñii di waa Italie lool lañ bëgg waaye ñii di waa France les bleus ñoom kat nee na leen la route est longue yoon wi gudd na lool. waaye nag muñ leen dina baax dañoo def match niil benn bal kenn ku ne moom nga dugal sa moroom ñoom ak Ukraine ñoo doon jongante démb naam kii di Griezmann moo dugal bit bu rëy lool sax waaye kat yëf ya lañ ko dooree mooy lan match niil kenn ku ne am benn bii ci sa kangu moroom ñu témboo mu mel ni kon ñii di waa France daal kon ña ngay wéy di am yaakaar ndax daal seen équipe bi démb doxal nañ waaye amuñu ndam. démb Ukraine yoon taxaw taxawaay bu baax. bloc danse di gërëm ñëpp di sant ñëpp. di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ñaan ci yéen di ñaan nangeen ngeen ngeen bës cloche de notification bi ngir lu wàcc ngeen mën ci jot ñu ngi leen di jaajëfal ba subaak jàmm incha allah